salaamaaleykum wa rahmatullah nu dikk ci ndenkaane sëriñ bi téereb silkul jawaahir day wax solo si nga xam ne ñaan yàlla am na ko lool sunu borom di ko ñaan dafa am njariñ yu bari ndax yonent bi salallaahu alayhi wa sallam nee ñaan mooy ak jaamu yàlla daa wax ne yàlla nee ne ñaan leen ma ma nangul leen ñi nga xam ne dañu ma rëyee ñaan de nar nañoo sax ci sawaraw jahannama wala yaas billahi taala nee na képp ko xam ne nii tay wute ñaan yàlla sunu borom dana ko ubbil buntub nangu nangul koy ñaanam nee na it bépp dogal boo xam ne daa bokk ci dogal yi nga xam ne sunu borom mën na koo far dina ko far ñaan rek ko mën a delloo moo mën a far dogal boobu nee na léeg-léeg sunu borom bind ci nit ne ku gàttoo fan lay doon waaye loola it mën na koo far nit ki bu góor góorgóorloo mën naa def loo xam ne sunu borom day dindi loola boole ko ci ñiy gudd fan. lay tax loolu am nag nee na bokk na ci ñaan ak it lebal nit ñi ak njëkk di defa def ci nit ñi lu baax dana tax sunu borom far gàttu fanu nit ki bind ko gudd fan nee na dogal lu sunu borom boo xam ne ni musiba la wattandiku mënu la musal ñaan moo la cay musal nee na ñaan ak balaa dafa mel ne balaa da doon wàcc bi wàcc fekk nit ñi ñaanoon nañ yàlla balaa bi day dajeek ñaan gi ñuy bëre ba yomal xiyam waaye du mos a agsi ci nit ñi moom balaabi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne amul lenn lu gën a tedd ci sunu borom di ko ñaan nee sunu borom daa àgg ci ku ko ñaanul sax dalay mere kon bu leen lott mukk ci di ñaan yàlla ndax yàlla du alak aji ñaan képp koo xam dana tàllali loo xam di ko di ñaan yàlla rek kooku du alku mukk nee na koo xam ne daa bëgg nag am ijaaba maanaam daa bëgg sunu borom wuyu ko saa bu nekkee ci jamonoy ci jafe-jafe ci jamonoy fitna bëgg na sunu borom bu ca ñaanee borom sunu borom wuyu ko kooku ba mu ba muy nekk ci jàmm mu nga xam ne fitna ci ak seegut daa waroon du baril ay ñaan ci jamono jooju. boo baril ay ñaan ci jamono ji ngay nekk ci jàmm dana tax boo nekkee ci fitna sunu borom wuyul la say ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan mooy ngànnaayal jullit te mooy leeri asamaan ak suuf amul benn jullit boo xam ne nii dana samp ab jëwam dana jublu yàlla jëmmi sunu borom dana ko jublu di ko ñaan dara te sun bu ne sunu borom da ko jox la ñaan ñaan nag léeg-léeg nit ñaan ko rek. mu daal di yegg si mu gis ko waaye léeg-léeg it sunu borom téer ko ko ci ba ap mu jox ko ko léeg-léeg am musiba naroon a ñëw ci moom sunu borom jël ñaan googu sànni ko ca musiba ba ba musiba ba du agsi kon amul benn jaam boo xam dana tàllali loo xam sunu borom di ko ñaan te sunu borom nangulu ko ak ñaanam loolu mooy sunu dénkaanu tey wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu